benn problème quoi ak baat bi ñuy wax mandu parce que damay gis lu bëri ci commentaire yi nit ñi naa ñu yéen mandu woo leen yéen du ngeen ay nit yu mandu parce que dañuy ñëw wax leen li yàlla wax dañuy ñëw ne leen yàlla nee na ku bàyyi julli safara nga jëm ku gëma di julli yéeféer nga yàlla nee na lii yàlla nee na laa yàlla nee na jël ab cëram wala ak xam wala yelleefam jox ko keneen loolu bokkaale la ñu ne la yéen mandu woo leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul beneen nabi buy ñëw ci ginnaawam amul beneen keneen ku yàlla di yónni kuy ñëw ci ginnaawam ñu ne yéen maandu woo leen loo leen xamul da ngeen di si noppi loo leen wax loo xam ne yàlla moo ko wax wala yonente bi moo ko wax te ñoom àndul ak seen bëgg-bëgg bakkan ñu ne leen yéen Sénégal dafa fekke woon benn résolution bu ñu doon amal ci Nations Unies ñu doon voté si àq ak yelleefu góor jigéen yi ndax dañ leen ko war a jox am déet ci seen benn waxtaan bu ñu fa amaloon bu jëm ci boobu boobu direction ñuy laaj dëkk yi lan mooy seen xalaat mais Sénégal ci nguuru Macky Sall bii nii ñu nekk ñoom waxuñu ne dañ see ànd waxuñu ne ànduñu si ñoom dañoo nekk si digg bi maanaam ci ni Sénégalais di comprendre ne ñoom dañoo maandu maanaam kon maandu lii lay firi mooy doo wax ni dëgg la doo wax ni du dëgg doo wax ni yàlla lii la bëgg doo wax ne lii la yàlla lii la bañ yow daal da ngay taxaw si digg bi loolu mooy maandu kon sénégalais yi lii lañuy jàppee maandu te suñu président bi fii nii mu ñu koy firndeel bu baax a baax ndax xam nañ nekk diine islam moom amul benn complaisance ci affaire euh, LGBT yi nii daf ko dàq li nga xam ne mooy njaaloo sax dafa doon lu bon a bon kon waxatuma la ay affaire mariage LGBT loo xam ne bokkul si diine islam au contraire diine islam daf koy xeex. ndax li ëpp solo ci wax ji mooy Macky dafa nekk benn indice bu ñuy wan société Sénégal feebar bi nekk ci seen biir. parce que bu ñu amee président boo xam ne représenté wul bëgg-bëggu sénégale yi dëgg. te ñu ne moom mooy président sénégalais yi ça veut dire que sénégalais yi ñoo ko fal wa ilaa dafa nax sénégalais yi. te dafa xam sénégalais moo tax mu egg fi mu egg kon de feebar bi day dellu ci nit ñi sénégalais yi seen bopp ndax ñoom ñoo feebar ñoom ñoo am feebaru fen seen biir feebaru wax lu dul dëgg ba nga xam ne loolu dafa mujjee euh, feeñ ci seen nguur ndax gëm naa ne li ëpp ci Sénégal ñoom bëgguñu góor jigéen te pourtant seen président mën nekk di défendre góor jigéen kon loolu benn indice la benn signe la boo xam ne daf ñuy wan feebar yoo xam ne dafa nekk ci Sénégal yi ne jamono même peuple sénégalais yi ñoom ñoo amaloon ay manifestations ak ay marches a xeex yii nii nga xam ne ñu ngi ko fiy dugal affaire LGBT yi ak góor jigéen yi ñoom ñoo fi amaloon ay marches ay ay manifestations yu mag ak waa ànd sàmm jikko yi di ko xeex te pourtant ñoom ñooy ñoom ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo fi teg Macky Sall te Macky Sall boobu noonu après moom mooy demaat ci sëriñ si sëriñ si di ko ñaanal di ko suturaal di ko jàppale gis nañ bi manifestation yi amee ci affaire Ousmane Sonko bi nga xam ne Macky Sall moom il tremblait fi mu toogoon ñoom dañoo utiliser euh, Macky Sall dafa utiliser benn xalif général Mountakha Mbacké mu nekk dernier ressort am pour sauver lii ni nga xam ne mooy nguuram après Mountakha génn wax ñu nekk ñu toog après moom dina yóbbu suñuy doléance ci Macky Sall après pour Macky Sall moom dina ko def ko peut-être Macky Sall dina ko corriger mais gis nañ ne Macky Sall dafa génnaat gën a doon wëyu faalewul lijjantiwul li nga xam ne mooy affaire xalif généraux yi lii wane encore nekk xalif généraux yi wax dëgg yàlla amuñu benn njëriñ Sénégal kon nii la sénégalais yu baree di gisee li nga xam ne mooy maandu ñoom ab njub niñ ñu koy woowee mais boo gisee loo xam ne dëgg la bul wax ne dëgg la boo gisee loo xam ne du dëgg bul wax ne du dëgg maandu daal maanaam ab njub ci Sénégal mooy na nga taxawee noo xam ne yow doo doo wax ne lii baax na doo wax ne lii bon la doo defar doo yàq yow daal taxawal rek boo gisee luy yàq nga bàyyi ko muy yàq. bu ñu amee ku ñuy blâmer bu ñu blâmer am Macky Sall mais dañu blâmer ñun suñu bopp sénégalais ndax ñu ñoo nekk ay jullitu mauvaise qualité wala très basse qualité ay jullit yoo xam ni gëmuñu dara gëmuñu yàlla gëmuñu yonente bi li yàlla wax li yonente bi wax yiteeluñu mais ay nit yoo xam ne xamuñu leen mësuñu leen gis mësuñu leen miit mësuñu leen rencontré ci live bi. ñoom la ñuy jël jël seen wax teg ko si kaw waxu yàlla ba pare di espérer nag loolu noonu moo nar a bégal yàlla. léegi yéen wax leen ma loo leen xalaat maandu lan lay firi ndax lii Macky Sall def loolu may maandu bañ a wax waaw bañ a wax déedéet maanaam da ngay nekk si digg bi góor jigéen baaxul wala baax na yow si yoon nekku si da ngay maandu ndax loolu noonu may maandu wala maandu may def li nga xam ne mooy àttee njub lan ngeen si xalaat asalaamaaleykum wa rahmatulah.